liggéey bi de noo ngi yàlla xam naa na mu daan mel melatu waaye nag rek teewut noo ngi sant yàlla bu baax te xam na yàlla du fi jóg moom mi nu sàkk moo nu jox wërsëg te doon doon fàtte noonu mooy fàtte suñu bopp fàtte leen war fàtte suñu warugar waaye yàlla moom fàttewut dara béyiwut dara ah kon nag noonu noo war a góorgóorlu ci li yàlla san gun xëyee sabablu te ñun ñëpp nu àndi jàmm ci réew mi te ñaan jàmm ci réew mi def saa borom defal nu jàmme adduna defal nu jàmme alaxira sutural nu adduna sutural nu alaxira ndax maanaam xeex yeeg xuloo yeeg ŋaayo yëpp ëppal ak yàkkamti képp moonu ko yóbbi ak xir waaye kenn ku ne la la yàlla bind ci yow ak la nga xam ne moo lay moom lay dogal nga xam ne ku yàlla dogal ne tudd ne moom mooy moom réew mi bu soobee yàlla moo koy moom ki fi nekk it bu ko yàlla bàyyee ci loxoom yàlla dana ko dimbali bu soobee yàlla ndax réew mi moom li ma gis xéewal gu yaatoo yaatu gu wala ngaan angaari gerte yoo xam ne fenn fu ne da ngay séentu ca kaw nit ñi sotti saako kenn ku ne moom daal xéewal laa gis ci réew mi goo xam ne nit ñi buñ amoon muñ tuuti tuuti tuuti tuuti bu soobee yàlla soobi yonent bi xéewal gi moom dana wala ngaan gis naa ko gis naa ko xéewal gi daal dana moom tubaarkàlla euh, bekkoor bi moom dana nii mu mel bu soobee yàlla day deñ ndax jafe-jafe yu ne ak jàpp ndax rek la ci suñu borom di teg man daal xéwal gis naa ko ay angaari gerte yoo xam ne fenn fu dangay xool ba ca sa kaw ah dangay toog eh, eh, gerte gi fenn fu ne def jël yoo xam ne jaaxal na ñëpp nit ñi sotti saako yi ca ko ci xef sa saako yóbbaale la. get moom daal xéwal laa gis goo xam ne tubaarkàlla nit ñi nag dañoo war a gëm yàlla dellu ci yàlla amug muñ amug dal amug muñ amug dal xam ne dana baax ku ci yàlla def sa wërsëg da nga ko am ca doo sonn. ki yàlla nar mu gañe kenn mun ci dara Macky Sall mi ñuy xeex it bu ko fi yàlla ah, bàyyee mu ah, mu lim yéene ak lim naal saa borom dana ko ci dimbali dina ko liggéey ci réew mi dana soppi ko bu fekkee moo fi nekk xéewal gi dana yokk bu fekkee keneen na ñëw it xéewal xéewal gi daal gis naa ko dara mënu koo fànq yàlla nañ ko fekkee jàmm ci yàlla boole nu ci defal nu jàmm def jàmm ci réew mi def xéewal bi yaa sayyidina sana amin papa léegi ba ñu ba nga ñaanee ba pare gisoo ne violence bi xaw naa bari ci diggante campagne bi ba maanaam violence yi xaw naa bari waaye loolu lépp xirug doomu aadama akuk yàkkamteem la loolu du tax kenn gañe loolu du tax kenn gañe kenn ku ne ah, la wut am ca teg am ca muñ ba ci yàlla defee sa wërsëg nga am ko ñi nga xam ne ñooy xeex itam ñàkk xel ak ak xirug doomu aadama rek la ndax xeex bi du leen jëriñ dara du tax ñu am dara xaste beeg wax ju ñaaw ju du tax ñaam daara dara ki fi nekk ku ko gën mun am ki fi nekk ku ko gën mënta am ku ko gën mënu fee ñëw. yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla suturaal ba mu jotaat ci réew mi ni mu ko bëggee yàlla na ko yàlla defal tawféex defal nu tawféex def jàmm ci réew defal ko jàmm defal jàmm waa gouvernement am yëpp maa ngi leen di ñaanal saa borom suturaal leen may leen tam bi jaay sey na sam can fekkee ko bokk ci barke Sëñ